mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi fii tey ci géejawaay seet si champion bi di guy gi démb Balla Gaye de dafa bëri am ndam lu rëy ci kaw Gris Bordeaux ñu gis guy gi wàcc si fa démb ñuy sàcc dugg ci biir kër gi sone fëgg dugg ndax démb ci guddi damaa ñëw fekk moom tey damay ñëwaat wasaare làmb wasaare. booy noo tudd. Mbaye Mbaye fan guy gi dëkk. est que mu ngi fi. kay fëggal ma. mbay man ñëw ma fëgg fëggal rek soo ku ubbi rek ma yoxo su dugg mbay mbay mbaa guy gi la gis nga am problème salaamaaleykum grand maa ngi jégalu ci filme bi de mbër laa doon seet guy gi moo ma jox rendez-vous maa ngi direct wasaare lamb moo koy nax waaw ah, merci grand moo koy <laughs> mooy bàlli yooyu yéeg de xool leen ma rek grand lu muy def wuy ma day entraîné hmm, su ma duggee du ma def dara hmm. du la wax dara yow tamit hmm, nga ma ko leer na merci grand oh, gaay jëleen guy gi oh, gaay jëleen guy gi oh, gaay jëleen guy gi champion ko leen guy gi la ilaha illallah le baobab bi géej waay ndeysaan ma ngay sata ma ngay sata hi perkit ba <laughs> la ilaha allahu akbar allahu akbar allahu akbar guy gi maa ngi lay nuyu de maa ngi jégalu de guy gi maa ngi jégalu de damaa jékki-jékki rek siif maa ngi jégalu de balaa nga may dàq maa ngi direct rek te yow yaa tàmm direct yow moom yaa tàmm direct direct bu koy wax yow la. gaynde sa waa jéem a ubbil ci bunt bi de eh? ah guy gi macha allah macha allah guy gi ah, senegal sénégalais yaa ngi gis de. Ah, bu soo yëre guy gi lii dafa dafa nice guy gi da ngay ngemb stade bi yëpp di la xool adduna bi yëpp di la xool guy gi lii du dara ay guy gi macha allah waay eh? macha allah waay ah man kay ñëw naa fi démb fekk ma la fi eh? ah, waaw. dama doon sàcc pour jéem laa kii mais guy gi ciif naa de. awoo ah, <laughs> su ma la su ma la wooyee booy loolu da ngay naqaree jot. guy gi loo da doon entraîné nii. non. ba dem ci vitaar lañ jógee ñëw doon rek sànni loxo yi loxo yi bàyyi rek. Hmm. mais sinon. sant yàlla mbaa yaa ngi am na rek. man la dañ laa woo promoteur yi dañ woo wala daa am luñ la dee. wala moom baa ji mm-hmm. ay waaj quoi. Mm-hmm. surtout boo jigee ci defet. lii dem ah. boo jigee ci defet. Mm-hmm. xam ne yow mi bokk nga ci làmb. cool dafa bari quoi. moo tax xama rek dañu nekk sunu booy. mel ni John Sena wala Babacar ci suuf. dem géej dafa rafet mis gi ñëwaat dañ sunu forme rek mais. sant nañ suñu bopp baax daal hmm. waaw ci yenn détails yi. macha allah mais tey li nga am moom kenn mësu ko am jëli. kenn mësu ko am guy gi bett ko muy entraîné simeeku. non mais sant yow sama waay nga. non samay booy xam nañ lu logique. Hmm. te yow da bokk ci ñoom xam nañ ni ma ko waxee Pël barki démb rek. Hmm. du journaliste yëpp may jël may yaatal. yow ci ñooñu nga bokk ci ñi may yaatal. ndax su ma rakk nga. te wane nga cër bi war nga respecté bi. di nga wax journal ba mu àgg sa sa journalisme te doo ci dugal loo xam ne dañ lay ngaañ mooy journalisme léegi damaa bëggoon ñu toog toog waaw bu neexee dem ci biti bu neex nañ dem ci biti. wala ñu taxaw sax. bu neex nañ taxaw ñaat min nga waaw ça dépend. bu hmm. la neexee kay. léegi léegi kon damay jël beneen beneen micro bi dama ko bàyyi. waaw aywa bu ñu ñëwee ñu toog ci biti sax nañ wàcc waaw ñëwal ñëwal. noonu la aywa. sama rek ah ay jiital wala ma jiital. Ah, lu ñu wax. Ah, ah ah kon def nekk nii. kon def nekk nii. ah. waaw mais làmb ci noonu la. aywa ñëwal. waaw démb. géej waaye dafa am ndam lu rëy. Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux Mhm. ma gi cent pour cent géejawaay bi yëpp ñëw. Mhm. ban yëg-yëg ngeen am. waaw d'abord dañuy sant yàlla di jul ci sant sama ñaari waajur di nuyu Ba Seck yàlla yàlla olfa yéen bi mhm. nuyu waa Thiénaba ba bu baax nuyu sama papa ak sama yaay sama grand frère Modou suma famille yëpp Babacar suma rakk nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk fii ñoom John Sena am sunu maam am ndeysaan sunu kilifa la ji juróom benn fukkat ak ñett <laughs> ànd ak ñun nuyu ñu nekk ci kër gi ñëpp ñoom bàcci Mhm. sama boy yi fi nekk bàyyiwuma kenn vraiment koñ bi ñoom Père Mansour Omar Der Lamine Niass Fa Niass Mounas bàyyiwuñ kenn vraiment dañ may bëggee. Mhm. bu làmb sax dañ may bëggee. Mhm. waaw di nuyu ñëpp di nuyu waa Guèye sama yaay Waré Sarr sama grand frère Nas Maam Mbaye Yaare Caama sama yaay Torondo ñanga Sayar sama Torondo bàyyiwuma kenn. di nuyu sama benn xarit Jibi Sila bu nekk pare au passage di ko nuyu baax di ko jàll Ibou Sila di ko jàll Bàcc Sila di nuyu waa France gi yëpp waa États-Unis Ndoye. cuus yàlla mbaa tous sama kot bo ah maa ngi ko nuyu bu baax. Hmm. Yambu Ndiaye mama Mati Dabel Laye Ndiaye bàyyi ma kenn ku nekk États-Unis non guy gi di nga ñëw ci di la nuyoo di la nuyu yow. nuyu nuyu nuyu sama papa démb dañ laa gis Amady Sarr Père Tere Sarr yëngal. mais ñii ñii gisee ma leen nuyu. vraiment mais guy gi di nga fay bi booy booy ñu tàggoo di nga di nga nuyoo. nga nuyu ñëpp leen. Mm-hmm. ndax démb ni nga ñëwee stade dafa jaaxal ñu bari ñu jékki-jékki gis 100 pour cent bi wax. Uh-huh. Uh-huh. guy gi Abdou Diouf Gabar Sène uh-huh. Marle uh, ak Marle Safara Safara boo yëpp Eumeu Sène Junior Eumeu Sène Junior ndeysaan ñoo Alioune Seye Alioune Seye deux noonu laa ma ji neex ndeysaan ñoo ñëpp ngeen ñu wàcc démb dañoo dem sama benn canal au passage di ko nuyu Tafa Napoli hmm. moo stade bi ñoo dend sama kër hmm. tante Maïssa hmm. ñu dem fu mu defal ñu regroupement rayon ñu quinze ginaar démb démb démb quinze ginaar foofu quinze ginaar ngeen dóor ci dañ ko wàññi sax au passage di ko nuyu du nuy jaara soxnaam jaara hmm. bu baax sama tante sax waa kër gi sama tante Paala Baara sunu grand frère hmm. ñu de defal ñu quinze ginaar ñu def regroupement ñoom gabaa sin xawaree ginaar yi ñoom marle ëma seen junior ñu hmm. jóg bébé guy gi dem stade liir stade bi ñoo xam ne tey jii yëngal mun nañ fee may bala lu bari moo tax bi ñu yëngalee wàcc defe gis nañ Balla beneen bala lañ gis. mais guy gi li ma jaaxal ci yëngal bi da ngaa simmi blouson uh-huh. ñu ne déetawaay guy gi simmiwaat t-shirt bi. Uh-huh. ñu ne déetawaay guy gi def yaramu neen. Uh-huh. lan la daa am koo doon xuuxal foofu. boobu bëggoon naa sax def leen lu ëpp yaramu neen parce que bis bee ko laajoon Balla suma frère la suma waay la suma xarit la. Hmm. ñaari kuy dañ naan du bokk mbalka amul ñun amuñu benn kuy la ñam. Hmm. ñun ñëpp dañuy nekk ci ginnaawam. Hmm. mais moom moo jiitu comme la ma wax démb amuñu lu ëpp. mais déglu di jëlale di jëlale Hmm. loolu la njiit di def. wala hmm. démb biñ tàppalantoo ma moom. Hmm. xam na li ma ko yéenee. ma ne xam naa li ma ko yéene te démb moom amoon leneen lu gëlu kurus dinaa ko def. ndax xam naa ni bu ma géddee kulus def li may def moom dina am lu mu ko sentir. muy man muy Lac de Guiers muy moom muy Alioune Seye kenn ku ne xamante ne suñu biir. te bu ma sentir ñëw ci bis bi doo ma fa gis xam naa fulla ju toll noonu. mais amuñu benn problème ak moom aw ma benn problème bari géewaay. mais li am solo rek mooy nu géey génn ci diggante yi. na gars yi génn ci diggante yi. Mhm. muy man muy keneen ak keneen ak keneen keneen ñun ñoo ci gën a néew le problème wallahi bari nañu fi ndeg na ay deux cent pour cent cent pour cent dëggawul dañu tas nañ bu yàgg dañoo nekk di wax rek mais ñun hypocrisie amul suñu biir. Mhm. lu nit def da ngay xam ni kii lii mënu koo téye au passage di ci gërëm suñu gannaaw liiru jaan bu baax. Mhm. dox na ci jéego am solo. open de presse beeg làmb ji maa ci bala bëri la ci am. wallahi coono yi ma ci daj xanaa ak entraînement. mais ci wàllu ñaan wala ci wàllu woote. liiru jaan du ma bàyyi ma fenn Lamine Golo du ma bàyyi ma fen mais nag bu jàllee rek mun nga wax say choix. woote nga ci combat bi ñaan déggoo li ma wax Lirou Diane du ma bàyyi ma fen Lamine Golo du ma bàyyi ma fen ñi dend ak Balla sax am na ñoo xam dañu ma bàyyi ma fen parce que xamoon naa combat bi da ciy wéet. Hmm. xam naa mbër boo amee defet ñu bëri ma riirandoo lañ dañuy rek jàpp nii pour nga am victoire. Hmm. soo paree ba amaatee defet ñi doon jàpp ñooy tourné di yàq sa der te ñooy gën a reculer puisque du Balla moo écarté ñu. non man waxuma côté ay staff yooyu. Hmm. mais wàllu jàpp la li ma wax nii boo ko laajee dëpp dëppee micro dina la ko wax. démb gisuñu Thierno Gueye ci lamb. non loolu moom loolu vie privée la mais côté financement laa wax man. Hmm. man dama koo dund te xamante nañ man ak moom ñoo bokk ay nit ñuy jàppale. Hmm. ñoo bokk ay nit ñuy jàppale mais loolu jàll na jàll na. li ci kanamam rek. da dàq li ci ginnaawam. arbitre bi sifflé na. Balla Gaye bom Gris Bordeaux. <laughs> combat bi nan nga ko gisee gi ñoom ñaar ni ñu dóorante kaawoo am ñu jàppante waat bëriwaat nan nga gisee combat bi. non gàcce ngalaama Gris Bordeaux félicitation Balla Gaye mhm. ñaari ponkal yu ñu runkum kenn ku ne sa sa loxo di posé cent nangam kilo. Mhm. nga dóor ko sa morom bu wàccu loolu sant yàlla la. lamb ji mënoon yomb. Mhm. Balla Gaye da koy encore Gris Bordeaux da nga koy encouragé félicité Balla Gaye mais ñoom ñaar amul kenn ko xam ni di di mérité nga surtout Gris Bordeaux. Gris Bordeaux li mu bëggoon ci combat bi am na ko souplesse déplacé wu dóoru arrière am na ko. Mhm. mais ndam yàllaa ko moom yàllaa ko jox balage Gaye mu moom démb. Mhm. mais ku naan Gris Bordeaux indiwul dara ndax nga sa bopp. Mhm. mbër ku na kuy analyse naan Gris Bordeaux indiwul dara. wala ay ñoom ñaar ay nangam nangam nax nga sa bopp. gars yi bi ñu simee ko ci photo shooting yi ñii ne nañ ay ndoxata la ñuy tuddee leen ay fondeek ay ruy bu dog ak yu mel noonu waaye démb daa mel ni bi xa bi ñu nee runkum daje xeex bëre. loolu gëj naa am ci jiili waxoon naa ko nee naa la. munoo yor soxna su baax mu lay njoñal ginaar. ngeen tëdd ba benn heure bi. Hmm. di am bànneex boo xam ne wala nga yëg loo xam ne sa àdduna loolu plaisir la boo xam ne day day développer sa muscle. Hmm. nga xëy di wow koŋŋ. loolu boo ko dee def dañu war nañoo wax sa jabar ne ko kii est-ce que jabaram sax mi ngi koy toppatoo. man boo ma gisee avant ak nga xam ne bee bi mi ngi koy toppatoo. bokkul. waaw mënul ñàkk. mais léegi noo fi nekkee nag yor benn poids bi ñu naan ay ndëxët di nga am poids mais nee naa leen biiru Balla Gaye bi ak loosam bii pël moo ma jël si fii ma toog. Mm-hmm. mu ne ma ndax ji ji jàppante ngeen mën ko jàppante wuñu ndax am na doole mën ko loos wi de nañ ñaan yàlla muf bañ a giri loos bi bañ koo féete suuf loolu laa loolu laa ko waxoon nañ indiwaat mm-hmm. image yi mm-hmm. te loos woowu tey yàlla sutural na ma ci wax bi ma ci waxoon loos ci la tourné giri bordeaux ba giri bordeaux dem suuf nit lay nekk ci moom dooleem moo koy xamal boppam mais du ay biire ki ay lexe ay nangam nangam nañ bàyyi yooyu Balla Gaye combat 2012 ak bi muy daan yeneen moroom yi mënu ko bokk tak léegi Balla Gaye benn tànkam bi génn làmb moo gën a gaaw benn tànkam bi duggaat ci làmb. Hmm. li muy li li muy bi génn ci làmb moo gën a jege li muy duggaat ci làmb. li hmm. ko dese ci làmb. Hmm. Gris Bordeaux li ko génn ci làmb moo gën a dese li ko dugg ci làmb. kon foofu la ñu war a analyser mënuñoo maintenir seen form foofu ba foofu. mais nag nit du ñëw rek nga ni poids bi mu yor ndëxët wala jeeg lañ naan naa ko ci Balla Gaye ni wala kuy bi bër Bordeaux jëloon mbër mu ko ci jëlaatoon wala nit kuy analyse jëloon ko ci. Hmm. bu la nee Balla am na doole doo ko miim. mais démb dafa am lu ma jaaxal. Hmm. mooy guy gi ñëw na bu yàgg wàccul. Hmm. le fait que Eumeu seen wàcc rek guy gi wàcc. Eumeu seen a taxoon nga wàcc wala da ngaa wàcc. Eumeu Sène tax na parce que dem nañ kaw ma topp ko ñu ànd ñu dem ci waa Lutte TV ñoom Lamine ñu naroon toog wax mu ni day nuyoo ma ne ko boo nuyoo man ma nuyoo. ñu dem ñëwaat génnaat xam nga affaire yooyu ci kanam ab image sax yooyu man du ma du ma utiliser hmm. ndeysaan muy mbër moo xam nag mbër la ànd ak hmm. saa bokkal hmm. lanjak ñu mbalagante suñu làmb taxaw rek sama papa Gasson ak Makan ñu ngi su waree taxaw rek ñu ko décorer rek démb Balla Gaye da lay duma daan la parce que bi may dem ñu may sànni ay ndox boobu yéeg naa nga ñëw ma jekkale Hmm. bu fekkee nag loolu moom promoteur yi soxla nañ ko. Hmm. man je suis prêt comme li ma waxoon ci Eumeu Sène rek ñemewu jël ba Gris Bordeaux xalaatoo ko. ma gisee man xeex bi may xeex xam ne waajal naa sama bopp. xeex bi Gris Bordeaux xeex ak Balla Gaye 2 guy gi xalaatoo ko. bu may xeex ak moom maa ngi moom luñ xeex dama koy jàpp daan ko parce que Gris du ma nekk di moom parce que je suis grand frère du ma xeex mun naa ko kii sa xeex ma xeex ak moom. je suis grand frère non ñoo taxaw ak Gris Bordeaux. non xam nga mbër. non guy gii xam nga Gris xam nga Gris xam la boo xam ni euh, mbër la boo xam ne ci àdduna. Hmm. ku bëreeg moom rek faa nga jàng xeex. man boo jëlee samay wax yëpp man du ma far Balla Gaye ci lenn. Hmm. suñu waxee man leen nañu na fàtt duraat bi droite bi bu dar woon Balla Gaye Gris Bordeaux du am dara ci làmb ah. mais droite Gris Bordeaux ku ko xeex ci làmb mooy Gris Bordeaux. mais yow ñaar bu ngeen xeex di nga mën a fàtt. droite laa koy tegal bu ñu xeex ma moom parce dama koy jàpp. droite ngay teg. moom laay teg même même ma xeex moom droite laa koy teg parce dama koy jàpp si. dama xeex moom. da bàyyi gauche bi teg droite damay bàyyi laa indi man tollootuma léegi fu may jàppee ci làmb di yàq sama combat dama lay jàpp ba mu dëgër imposé la daan la. jàpp nga ne yàpp doole Gris loolu leneen la mais dama ne daal incha allah bu fekkee daal moom combat bi soxla na ko man waxatuñ waxi loolu soxla naa ko man moom mm, li ma la wax rek nañ xaaj sama kase ab ñu moom ñu tegal ko man na taxaw rek. ñu tegal ko waaw moom Gris Bordeaux na taxaw rek. bu Eumeu Sène d'accord na taxaw rek ñaar ñi daal mooy. sunu si Eumeu Sène moom mu ngi ci contrat fi mu toll nii day xaar waaw léegi nag ñaar yooyu Eumeu Sène deux mois trois ma man pare naa li ma dese mooy rakisement contact jeex na mais deux mois trois mois pare soxla soxla ma cent cinquante kilos soxla ma wax ni est-ce que du tax Gris Bordeaux bu dajeeg yow ci ruq wala mu kar la nga am problème Gris Bordeaux mos naa ko fi tegal ay lu metti ba benn bis ma dem stade Iba Mar boobu keroog jour boobu jemi ñoo ma génne gars yi commencé wax ma ne man Gris Bordeaux rek mais ama Gris mbër la boo xam ni li ma la waxoon ci làmb yi Gris nanta la Gris du mbëru ngaaka hmm. tey ji ji bu ko arrangé suba suba mën naa taxaw ça dépend maa ngi koy taal loxo guy gi au respect pour nga pour pour loolu rek la mais du leneen nekk ma fi nag topp ci moom di xam nga wax loo xam ne war ko wax jaa mbër mu ma respecté mbër mu ñun ñi hmm. ma wax dama ci wax loo xam hmm. que booy la daan combat yi nga bëri ak booy yëpp da booy yi da nga cee ñàkk. nga amee ndam. xam nga xam nga est-ce la amee kon man damay dugg ci parmèresam te kon loolu manque respect day ñëw bokkul. Gris Bordeaux moom champion la. waaw le troisième tigre de Fass. par mesam laa man maa ko ay victoire man maa ëpp victoire. Gris Bordeaux am na douze victoire guy. douze victoire ma maa ko ëpp combat. ma ni Gris Bordeaux douze victoire la. waaw déggoo ma man maa ko ëpp victoire maa ko ëpp combat loolu laa na yàlla bu ma toogoon di lim fii naan noonu maa ko ëpp combat. moo la jiitu ci làmb. bokkuñu Gris Bordeaux bi muy bëree man boobu maa ngi cootee boobu boobu xalaatuma sax bay takk ngeem Toobu Takk Ngom Gris ci samay mbër la bokk ci mbër la bokk loolu kay kenn du ko weddi. mais douze victoire Gris Bordeaux yow ñaari victoire nga. non bëri na man man est-ce que. non est-ce que est-ce victoire man na huit. man est-ce que nga ne ma gëj waaw. ayca yeggale. waaw maa mun a gëj. waaw Sénégal la neex. waaw <laughs> nga ne ko sa waa rek yegg man sa mais dama def sax daa <laughs> léegi léegi Gris Bordeaux. Hmm. yow guy gi man huit victoire laa jàppoon ne moom nga. non man. naa la ko jox léegi par huit victoire man huit victoire ah bi may bëree combat yi ay reefoo nekk ay combat yi njaaxum yi rek sax. yow saa yi jiir man ma bëri ko man chaque dimanche laa daan bëri sëñ Modou Niang sëñ Modou Niang sëñ Modou li ma ko li ma rek. ci moom ci ay victoire rek. Ah. neuf la moom. neuf victoire sëñ Modou Niang neuf combat neuf victoire moom. non non dix combats benn bila laa daanu muy njaaxum yi des yëpp ay victoire la yëpp sëñ Modou ñaa ko tëgg loolu li nga naan huit. muy kan njaaxum nga wax. njaaxum sëñ Modou tëggu ko njaaxum eh. ah, refon waaw da nga ne njaaxum njaaxum da ngaa ñàkk. njaaxum non maa ko daan dëkkam refon boox. nga ñaañu ko reporté. kon building ci benn building bi nga ñàkkee benn building sëñ Modou ñaa ko tëgg ci laa daanu. man bëri naa lu toll ak sept ci àll bi yoo xam ne arène la lim ma ko sama palmarès sept combats yoo xam ne àll ay refon ay boox Hmm. yoo xam ni dama ko bëri foofu mais lim ma ko sama palmarès. guy gi li ma bëgg a xam. ak ak ak ngeen gi neew. li ma bëgg a xam. Hmm. bu la boo sa téléphone na kar makan beng woo la. Hmm. na la sa diggante ak Gris Bordeaux laa bëgg. loo ko wax. non passage di féliciter de féliciter démb Gaston Mbengue ci ci ji am na sécurité. am na mobilisation. te it vraiment am na réussite totale yàlla na ko jig jig doomam makkan. parce que tamit booy bu ñu war a encourager la papam jox na ko relève yi. li mooy ñun mbër ku um mu seet si nga raisonnable jàppale ko ci yenn détails jeex na. Hmm. Makan bu ma woon moom defe naa ne moom la yàqoo ndax naa ne ku la tëjal bunt bi bëggal fanaanal du leen boole. ku bëgg fu mu tëdd. ak fanaanal du leen boole. ak ku bëgg boole. man moom defe naa ne bu dee problème rek. Ah. moom li biir ngir bëri war a jënd ci bee. Ah. mën ko jëndal loolu moom ci contrat bi laa koy boole. ma jëndal ko ko yow ma jëndal ko moom. tribune ak tribune man sama sponsor bu njëkk man la. man noonu laay tëggee làmb dama naan naan loo may fay ngeen may ma ne ko tribune bi ak tribune bi ñaata million koy kii ñi ma tëgg ñëpp xam nañ loolu Laat Ndiaye mi may dégg dama bàyyi ma fenn. ci li nga jugee buñ la ko fayaatoon nga bëri Gris Bordeaux. ci la ma. jugee mën na koo bañ a mën na ko bañ a mat. <laughs> xanaa maa bëgg a bëri non xanaa maa bëgg a bëri. loolu la dañ la ko dee. non du dee xanaa da nga def non combat bi combat Gris Bordeaux Balla Gaye. xam nga ñoom dañuy fu ne dem nga fa. waaw mais est du fi ñu dugal Gris Bordeaux ba tey dañ ne la guy gi duñ ko fa génne fii ak. bëri non du mbër bu ñuy jàpp ci gàllaaj ma wax la ko tey giri te doomu aadama jàpp ko yombul giri li ko daan entraînement Balla Gaye ak yàlla ànd ak Balla Gaye pour mu leer bu benn kenn bàkku naan maa jàpp tànk ma def nangam. Hmm. yàlla mu ànd ak Balla Gaye yàlla mu ànd ak Balla Gaye. gàllaaji bari na démb. déggoo li ma la wax loolu for ko loolu daalul mbër yow bu daalul bi du arbitre du sifflé yooyu ñuy def noonu. Hmm. bu daalul mbër arbitre du sifflé du sifflé dañu waxante dëgg mais li daan mbër lu ndaw la. lu ndaw li laal décision suñu borom la dernière décision yàllaa ko yor dernier dama doon am benn mbër ma doon bëreel au passage ki ma doon nettalool gaañu na yàlla na ko yàlla yërëm. Hmm. mun ma guy gi am nga gàllaaj ma ko macha macha allah tous de bois mun ma ne ko lu tax mu ne ma damaa xam ni sa combat ak diw liñ la def liñ def ci armée yow nga ñëw bëri si yow am nga gàllaaj ma ne ko loolay for ko loola rek bu doon loolu lu waay yéene nit boo xëyee mu chaque <laughs> jour nit tëkku nit def lu ne dem ci sëriñ bu xëyee du gis dara dane décision yàllaa ko yor yàlla rek ko yor mm. di ñaan yàlla bala gay làmb ji jikko Gris Bordeaux am beneen combat mm. ku man yàlla may ko ndam wala mu am combat man lu tax dem ñëwul stade gisuma loolu moom wax dëgg yàlla décision am la décision am mook estafam ñun li ñu waroon def nañ ko dajaloo cent pour cent bi yëpp cent pour cent bi yëpp waaye guddi gi daal boo bëggee dëgg dëgg dëgg ñun géej waaye amuñu problème wa mais Lac de Guiers gisuñu ko de. waaw kooku moom kooku moom diggante bi soriwul fi jigee maa la ko demal nga ne ko yow lu tax ñëwoo waaye guddi yi te guddi yi bu ma doon Balla Gaye na fi fekk man lu ci ëpp man la man lu ci man la man man laa la man la maay mm. diriger maanaam defal nangam defal nangam defal nangam. Mm. lu ci ëpp. kon démb woon nga Lac de Guiers téléphone. non démb defoon a dinaa ko fekk. parce que ñun ñëpp xamante nañ démb dañ fay daje. Hmm. démb gis nga suma rakk safara ñëpp def nañ ni maa ngi am nañ problème. Hmm. démb ba may fecc moo ñëw ma yëkkati ko na ko feccal. mu hmm. fecc ba pare jël sama yox yëkkati ma taxaw sama kanam. na ma bi daf la soxla. yow ñëwal nga taxaw nga ne ñu nii la ñuy def ak néeg muy wax boo xam ne bu dëggalu ci moom man xam naa ko. kon loolu ñun amuñu problème. ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen. ñun suñuy rêve léegi ñu dem ñu jox suñuy rakk kon defe naa na rafet. Lac de Guiers Balla Gaye ñoo bokk ndeeg baay ñoo bokk seen soose Hmm. man na kuy xaar guy gi man naan dinaa teg la déggee rek Balla Gaye naan leen jubale hmm. yow man xëyam lay doon parce que xaw ma fu ñu àndee ba fekk fu ñu leen di kii man nekkuma sax ci yooyu li ma nekk ñun amuñ cent pour cent hmm. un contre tous la tous contre zéro la moom moo fi nekk ñu nekk ci ginnaawam na respecté booy yi rek man garaawul maa ngi moom moom dër des nag ay détails la. dër bi la yéen waaw non max moom xamante nañ. parce que fekk nanguwul ni capitaine bi ci boppam ci man lay mujj. waaw na boppam. waaw fekk nanguwul ni stade bi man la. cool du jeex moom nangu la coolu coolu la la monument bi démb jooy na bay bëgg a dee liiru mais nooy def nooy def xam naa ne yow fi loolu yow moom dëpp dëpp dëpp nga ko micro moom cooli tàbbale. non jooy na bay bëgg a dee. de Sane wax na dëgg nag parce que hmm. démb. lu mu yàggoon bëgg la. Hmm. liiru dafa da laa gis ma wàcce rek liiru rangoon yi mënatul a téye boppam quoi. Hmm. maa ko xaw a defal ñëw fecci ma xam ni kii buñ kiyee dina ma dem bàyyi ko quoi. mais hmm. démb moom da nga xam ni kii am na émotion dëgg mais loolu jooy jooy contacté la rek. jooy contacté la démb nag félicité waa Guèye waay gi nag. vraiment man démb dafa mel maa doon bëri fu ma jaar. dafa mel ni Balla Gaye mooy ñëw. mujj gi dama ne woon je suis pas droit de erreur ñun ñëpp ñu def ñëpp kenn ku ne félicitation yi félicitation yi. ma ñëw sama koñ comme noonu félicitation félicitation vraiment. Hmm. kon loolu vraiment sag la te sunu suñu la di sant waa Guédiawaye gi yëpp nag. ak ñu hmm. doon ñaanal bal Gaye 2 ñëpp ci sama tur vraiment. Hmm. xam nañ yàlla xam na ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp sama benn boy ku ñuy wax Diantarang Ibou Diagne. day dem Niger Bamako Mali Burkina. fu mu dem ci paay damay woo di ma appel vidéo. fu mu dem ci paay Diantarang jour ma waroon génne ñaari pene la ma solal. na ma boo ñëwee fii boo ñëwee fii boo demee fii. paa bi lii jox naa ko li paa bi lii sawaay na am na am ndam saa jaañ teraanga au passage moom tuddee na ma doom ndeysaan ku baax mm-hmm. xam ni loolu tey ci sama tur la mm-hmm. kon loolu duñ mën luñu te moo tax ma ñi doon ñaanal ci sama tur ci Balla Gaye 2 ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp gis nañ lépp ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk daay ni ma ko defee ni la ko Balla Gaye defee su may bëri Hmm. ba làmb ji ba bi ñëwee suba la mag Lamine Golo déggante li déggante li déggante li déggante li déggante li kon defe naa loolu luñ luñ ko yéene woon la. Hmm. waaw di ñaan yàlla rek ne ko ne ko ci biir ay combat ñu gën a defaruwaat xam nga di waajal góor a soog euh, góor a soog euh, fils de Balla muy la 14 combat jam boobu di combat bu rëy boo xam ne vraiment waa géej am nañ ci taxawaay bu am solo hmm. incha allah te incha allah dinañ ñëw yàlla dinañu may ndam bu soobee parce que ñaari mbëri ci le 14 non déggoo maa indi fils de parce que ñaari mbëri yoo xam ne vraiment ñaari mbëri yu ma jox cër la muy góor sol mosoo koo gis mu wax ba ni guy gi nangam vraiment lu ñaaw hmm. kon du ma wax ci góor a loo xam loolu yàlla may ndam fils de Balla ci koom loolu moo ma war musuma wax tamit fils mu ne wax fils de Balla te waxul guy gi ci lu rafet kon hmm. duñ ñaane yàlla yàlla may ko ndam ci kaw góor a loolu mooy àdduna hmm. suñuy wax mun mooy mooy defar suñuy wax mooy taal moo tax ci nit lu rafet hmm. ko guy gi mu wax ci moom lu ñaaw kon kuñ ma ci la bi nga ma waxee tamit mais ku wax ci man lu ñaaw damay xam ne sa xel moo toll noonu rek loolu mooy àdduna quoi maa lay jaajëfal baax kontaan naa nag ci ñëw bi waaw kontaan ci waaw non yow rakk nga loolu ma wax du dañ yow heure boo ma woowee rek Euh, dinaa sawak defa yow émission hmm. ndax nit nga koo xam ne vraiment jox nañ la cër jox nañ la bopp parce que li ngay def macha allah set na hmm. te mën nañ koo suivre quoi te mën nañ cee tontu hmm. par rapport ak comme ni ma la waxee yenn détails yi Hmm. waaw loolu mooy àdduna hmm. loolu mooy àdduna maa ngi lay jaajëfal bu baax kontaan di nuyu ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp comme niñ ko waxee bàyyiwuñu kenn képp ku ñu siiw di nuyu sama soxna béebi bu baax a baax a baax hmm. suma soxna sama jabar suma doom suma lépp di nuyu famille bi yëpp yaasu ndongo ñoom ummi yaayam jugoon ndongo paam ndongo képp koo xam daal sama famille soxna nga béebi maa lay nuyu bu baax a baax suma kooku suma doom la du sama jabar kooku suma doom la dama ma vie suma doom la laas bi ma ko takk ak as bi nekkee nii man xam naa moom xam na yàlla xam na. Mm. di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal loo xam ne réussite njaboot ñu ñaanal ñu njaboot ku barkeel ñu suulante man ak moom. yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def di nuyu ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi aseg naa ma kenn. Mm. sama yaay waree saar na en tout cas daal kontaan nañ ci waa Géejawaay démb jëli. Mm. kontaan nañ ci waa Géejawaay képp koo xam ne nag yaa ngi béggee guy gi. nee na guy gi je incha allah pour affronter Gris Bordeaux je suis prêt pour affronter daa quelques instants incha allah di occuper tout le promoteur pour ma appel nas incha allah. kontaan naa ci ñëpp jërëm. jërëjëf guy gi lañ dalaloon di leen jox dig daje. waa jaswaar waa jasbara bi nag nuyu. Mhm. ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn ñoom tolloo Tomaani ñoom ñoom def live bàyyiwuñ kenn parce que ñu ngi doxal seen waar. Mhm. ñoom faram deux bàyyiwuñ kenn. képp koo nekk ci jaswara ñoom ñoom ñoom ñoom buzz. Hmm. ñoom kii Lamine Lit TV bàyyiwuñ kenn xam daal wax dëgg yàlla yaa ngi doxal Diass parce que tamit dañuy toog du ñu envoyé message yu am solo hmm. di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp jox rendez-vous incha allah léegi yàggatul ci contrat Gris Bordeaux kii guy gi jërëjëf jaajëf jili